boobu léegi est-ce que mën nga expliquer processus bi ak procédure bi fan lañ ci toll parce que j'ai comme l'impression que ça ne bouge pas. wax nga dëgg bouge pas te vraiment dëkk bi daal dem ba ba ba mu développé woon. gis nga non vraiment alors am na lu jiitu 2016. la bindu président de la république lettre ouverte la xamoon naa mu ne ko attention man ak yow am na décret boo xam ne signé ko décret boobu signé ko ci kaw rapport boo xam ne mu ngi jógee ci président ci ci ministre bi yor pétrole waaw maa leen di jaay maa leen waaye nag rapport bi am na loo xam ne enquête naa ko ba gis ko ci kaw information bu dikk ci man xibaar bu ci man du dëgg fii faux rapport rapport mu ne kon jógal nga def enquête administrative enquête judiciaire 2016 defu ca dara mais bind 2000 début procureur de la république que waaw dégg naa la ci télévision nga ne Khalifa Sall di ko topp ndax yow ku ñu laal alalu Sénégal da nga koy topp mu ne ko ah lii ci itam am na dundoon naa ci président de ta connaissance dina ko xamal lii kon am na nga def ci dara def ci dara BBC jóg wax li muy wax ñu ne ay appel à témoin. sëgg na nga appel à témoin boobu ma ne demoon ko appelé man xam naa ngi dem fenn waaye li ci amoon solo mooy li ma xamoon yëpp man dem naa wax leen ko wax na leen ne foo rapport moo am yëpp li ma leen bàyyi ëpp na téeméeru paas dama bind sama rapport teg ko ci seen loxo ci biir loolu képp ku yore boobu dossier ma leen bàyyi li ngay jiital mooy faux usage de faux en document administratif ak leneen balaa leneen di ñëw mu am corruption nag ak yooyu yëpp waaye yëpp mu ngi door ci faux rapport faux rapport UG bi aussi waaye loolu yëpp dafa ñëw rek tëye ko waaye li war na woon mooy ndax loolu itam UG wàllu ko UG confirmé na ne information nekk ci ci ci ci c'est du faux c'est du faux

loolu indi leen ndax doxal doxal boo xam ne dañu yaakaar naa daal borom xel nañu waaye dinañ ci jiitu seen seen xalaat yëpp dinañ ci jiitu jógoon nañu conglomération démocratique mais yow Abdoul Mbaye ak Mamadou Lamine Diallo xam ne bi député la tey ñu jàpp ne c'est un peuple moom askan wi moo ko taxaw jóg. na ngeen taxaw yow Abdoul Mbaye signé nga kon bokk nga ci mbir mi. ak Mamadou Lamine Diallo ndax askan wi moo koy tax a jóg en tant déposé plainte faux usage de faux ak corruption ak constitution de parti civil maanaam ñun ñu taxaw ci leneen góorgóorlu ba yi nga xam ne nii génn na Sénégal dellu si ci Sénégal. 21 juillet lañ ko man bëgguma ci dara sama avocat jóg na te ñetti weer ci gannaaw d'accusation li mu def tegu ko fenn dafa violer la loi dafa war a porter engagé procédure waaye mu ngi tëdd ci dossier bi d'accusation itam naka moom naka sa naka fu mu avocat lool mos nga doon mos a. mais gëm naa ne mbir boobu yoon sa leer xëy na bu Sénégal xëy na bu Sénégal tey waaye bés dina ñëw. njaay ñu ne la yem rek dafa foo dajee foo dajee wàllu kii ci wàllu aéroport waxtaan ak ñoom ay dégg est-ce que c'est vrai ñu waxtaan ak tam ñu ne dossier bi BBC bu sax gars yi doon na si sonal ñu ne information yu bari yow yaa ko wax gars yi. loolu amul. voilà euh, gis nga kenn dañoo bëgg a moytu crée wala. Pape Alé. waaw crée mooy lan. mooy pour de répression de l'enrichissement illicite. waaw. waaw nga ne da nga ko bëgg a dindi maanaam répression de l'enrichissement illicite nga bañ. ñu xeex alal bu lew nga bañ. peut-être forme bi la ñu wax. voilà renforcement des preuves. kon dañu jëkk nangu ne xeex alal bu newul bu jógee ci askan la ca politicien wala fonctionnaire wala secteur privé loolu dañ ko war a xeex dañu war a seet naka la ñuy ñaar war na war war nañ ko uti ci benn ki ko def ñoom dal ci kawam ñaar li mu jël dellu si ci ci ci waaye dañu am pays boo xam ne pour andi ak pour am amoon dañoo doxalee. waaye gis nañ gis nañ ko ci la indi ne cour d'appel dañ koy dindi waaw dafa war a tegu ci yoon dox ci yoon ñu dellu si bi. ñu doxalee atte naa jeex na loolu itam du yoon du yoon ñoom pour question foog mu am recours dëgg la première instance dogal ba waaye mën naa am appel loolu di ñaar waaye ñun liñ ci teg mooy lépp loo xam ne am na ci système judiciaire bi ci yoon jëmale ci xeex

am na loo xam ne man dama ko tudd. loolu daal moom mooy ab mbay. xam nga mbay moo gën nooy. te loolu biir banque centrale bind naa nag lu jëm ci loolu. benn CFA tur bi mën nañ ko soppi ndax am nañu ko bëgg ko bëgg ñu soppi tur tur tur wàcc moom amul solo. nañ ko ndegem am na soxla ko lool nañ ko soppi ñaareel bi toll nañu foo xam ne soxla wu ñu France ndax garantie boobu amul gis nga li wax ni garantie illimité mu dellu si amul amul loolu du Abdou Mbaye moo bëgg ne nañ dafa amul kon nañ ko génnee buñ ko dindi te buñ ko ay représentants français ci biir conseil d'administration ci biir commission bancaire ci ci biir politique monétaire loolu soxlawuñu ko léegi nag mu am loo xam ne génn na ca 21 décembre Alassane Ouattara ak Emmanuel Macron xamal ko

nit ñoo xam ne ñu dégg CFA CFA alal la kon bu leen wax ne CFA jaratul dara loolu am na solo wecc xaalis mu ne bëggul coow kon lépp loo xam ne ñu ngi koy dox dañ ko dox ci xalaat loolee ndax coow bi day wàññi valeur valeur CFA bi valeur CFA bi kon te moo am boo ubbiwoon sa carte sa yëfa nga ciy gis. ci doon wax que vingt et ba nag ca communiqué ba maa ngi ciy ne accord de coopération accord bu ñu ci gis. 我们会和一地起，跟日日本市民xam ne ñu daal di tas xibaar waaye fii li ci gis mooy ñaari président moom président bi la moom ñaari président yi concerné parce que président Côte d'Ivoire wax na ci turu UEMOA président en exercice conférence des chefs d'État te ñu wax ci France waaye ñu wax loo xam ne bind nañ ko te am yaakaaroon naa ne ca booba am na xaar accord bi ndax li ma gën a jaaxal mooy garantie bi nga xam ne soxlawuñu ko. da ciy dem si nee nañu bàyyi nañ ko dina am ba tey waaye day doon garantie illimitée mais garantie illimitée amul fenn benn mënut a am benn mënut a am. ñaareel kii ci bari c'est pas possible ñaareel bi. accord bi am depuis 1973 dañu war soppi. Mhm. garantie nekk ci concours de la France maanaam comme France budget fo trésor français mën na jóg bu fekkee ne ñuy doxal seen France soxla nañu devise mën la dem leen devise te nag ñuy leb la boo xam ne balaa ñu ciy jot da jëkk Sénégal day jëkk leb fonds monétaire dafa jëkk lekk fonds monétaire laa di jëkk lekk fonds monétaire kon boo ko seetee ba seet te ci juróom-ñetti lekk mooy am boobu di soog a ñëw te balaa boobu di ñëw sax am na stock or maanaam ours boo xam ne ni banque centrale moo ko moom daf ko war a jaay balaa loolu concours boobu di ñëw concours France di ñëw am na itam ñu tuddee opération de ratissage maanaam fépp foo xam ne gis nañ fa ne devise am na fa banque centrale dem jëli ji ko donc boobu garantie moo am nga ko garantie illimitée mais ma jaaxle ba tey nañu xaar banque centrale am na mu ci wax te jot na mu wax ci ndax waxuñu ci limité waaw jaaxaloon na c' est c' est incroyable loolu nag war a ñëw ñu préciser ay position di xalaat. war a activiste nag ci dëkk bi. dinaa am sama position waaye itam réseau en politique dinaa xalaat nga xam ne di mën naa doon gaañ-gaañ ci alal boo xam ne mu ngi ci loxo askan wi.